mais je sais chérie. non mais mais tu vois maa ngi nii parce que demain c'était si tu vois ces derniers temps aussi. mais chérie on a que des tournages. Tournages par-ci tournage par-là. non mais écoute ma chérie amul instant bu ma le de ma la je te jure. tu es dans mes pensées mais tu sais quoi chérie des fois je me suis dit est-ce que c'est pas toi qui perturbe en fait ma vie tu sais pourquoi. Mm-hmm. parce que je ne cesse de penser à toi mooy de même surtout weeru koor gi ni nga xam ne dañu am opportunité gisante lu bëri noonu laa lay namee. ah mais yaay bañ man weeru koor gi amul problème. waa mais sa woy nga génnee temps yëpp yëpp neex na de est-ce que xam nga loolu. mais xam nga bu dàq bi vraiment dama la koy nëbb am na bu ma lay préparé gis nga buy koor gi di def nii rek ñu dóor boobu. Mhm. et moi quand je chante pour toi c'est comme si je volais quoi. mais li nga def nii loo si dolli man fu ma jëm. non mais chérie ko. mais man bi nga ma woowee te yore mbir bi ak a neex. waxal daal. nag dama koy def benn genre a cappella bu sew. moo lay dugalal musique bi. waaw nga foog ni foofu laa yem. Hmm. ma ko defal la benn affaire bu garaaw. pare nga. yaa ngi gën a def naa la ko.

diinu qu'est-ce qu'il a ñu xam lan la. yow waatal rek ndax sa xol bi amour newu ci yow période ah boo ko bëggee rek ma lay def koy bëgg lu borom bi. papa ji sama xarit la a la mii bu ma gën a la bii man. pii pii pii pii. chéri c'est qui je ne connais pas ces gens-là. ah waaw oh, oh, dégg nga. dégg eh, wax ji pour mu gudd. ak mu gàtt yëpp jógal soor.

laay yow ki jeexal na kii boo a appelé ma appelé solo bon. ok foo koy ok lépp bon ok. yaa furlu sa bopp ndax li ko la eh. billaahi boo fi rek naa dagg solo bon. billaahi wallaahi gone gi yàgg ngaa fóonante. ñu ne la wax ci fóon rek fayoo ko bon ñu ne non fóon fóon fu dara a defal soo a a waay. allahumma salli yaa furlu sa waaye dama waay bu ñu xulli. yow it kër day am sécurité. maa ngi yow a yem dangaa gaaw a nalaw ma gaaw a nalaw maa ngi ci matelas bi waaw kon moom awa day war di fóonante ni ci dëkk bi ci weeru koor mu wax mu ne mu xujj bët bi mel ni jant tàkku sànni ci baawaan kii xam